te dafa am lu xew dama bëgg ngeen xam ko dama bëgg ngeen xam ko bu baax espoir sur institution de la république dama leen wax nommé à la tête d'une institution de la république nit koo ne Macky Sall mooy xalif généralam day dem jébbalu ci Macky Sall ba pare sukk raam na ko dénk naa la àddina ak ba pare ba Macky xam ne kii juróom-ñaari xelam mayu ko moom mu bëgg dara kooku na ko président lii mënul nekk à l'heure actuelle au Sénégal amul benn institution de la République boo xam ne kuñ fa tek sol nga tubay takk ko président Macky Sall ne ko nañu jaar jaaral ci yoon amul lan laa leen waxoon ci euh, élection législative heureusement c'est le peuple qui a ridiculisé les sept juges du conseil constitutionnel ñu def seen mascarade yooyu sénégalais yi def liñ def xam nga <laughs>

te Macky naa leen wax benn affaire du texte du loi du kuréel bi d'ailleurs def naa benn émission ak Moustapha Diakhaté mu mosoon ko wax d'ailleurs mu leen Macky ay démocratie ay bonne gouvernance yi du souci bokkul ci ay mbiram yoonam newu ci te buy wax ñoom da leen koy wax carrément voilà ce que je veux faites-le faites-le ñoom ne ko oui monsieur le président gis nga ni taalibe di deme di jébbalu ci sëriñ ne leen dékk naa la àddina ak alaaxira nangul ko sëriñ bi képp kuy jëflanteeg Macky Sall ci institution noonu ngay def amul